salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi yéen ñi di seetaan seen télévision Pikine TV ak pikin Biz ñu ngi fii tey ci Pikine ginnaaw raay si ndaanaan bu mag ñu naan kan Fatou Diop soofu sañ Babacar Sy madame Seck waa tey ñu ngi leen di suñu première émission muy taaru jigéen taaru jigéen nag ku ko dégg wala nga yëg ko di nga xam ne fii ci pikin ginnaaw fii la buy yoon ndax xale yi baax a fi ne ngeen ci ànd ak Sister Ndeya ñu dugg xool tey lan la ñu Fatou Diop indil tey soofu sëñ Babacar Sy tey lan la ñu indi tey ci taaru jigéen Pikine TV ku bëgg lu baax fii ngay ñëw kon ñu xaar Faa Diop kon mu yóbbu ñu tey ci cosmétique bi ñu xool lan ak lan tamit moo fa amati ci yu baax ngeen àndaw seeg seen système Ndaya dëgg neexu dëgg du neex ak waa Pikine TV nee naa leen fii la lu baax di baaxee fii lay xewee dëgg neexul kon nag ñu taxaw fii xaar ki nga xam te mooy madame Seck kon Fatou kon ñu dem xooli cosmétique bi. téléspectateurs yéen ñi ñu seetaan ba tey ñu ngi ni fii ci centre commercial bi fii si ginnaaw raay. ma goro ko tuddee mooy yaay borom kër gi nogoy cosmétique. kon ñu dugg kon ñu ci biir li fa na torop allah man nga xam ne bëgg yu baax ci laay dox bu tey bi na nga def. ah ça va na ngeen def. Ah, gis ngeen de boutique nogoy raay rek si centre commercial bi indi ay xeetu baax baaxam pour présenter ko nit ñi téel ma nii sa loxo bi piisal ma may xeeñtu cameraman bii doo ci laal non non seerul dañoo ñëw pour yombal lépp pour waa ginnaaw raay quoi franchement dong fi nekk yii yëpp ay xeetu parfum am ay silence mooy tëjal sa gémmi ak yenn moo ci ban noonu ah, silence ma ah. tamit na

moom fi moom fekk bu mu ubbee fii moom yëpp dañ cee kontaan wax dëgg neex ndax moom moom du jaay original lay jaay léppam moom Europe lay jógee. waaw waaw ñu ngi nii ba tey fii nga xamante ne mooy bitigu Fatou Diop Nogay dëgg neexul kii moo jógee jël gorom rek tuddee ko boutique bi noonu li amut mais. xeetu gaam yoo xamante ne franchement yu baax si yéen la te du yàq teen koy jiwoo te doo xees doo ñuul aussi sa teen normal lay lay garder. damay faral di gis yenn femmes yoo xamante ni seen seen teint day yàqu ñoom am na ay diw yoo xam ne spécial pour ñoom la ñoom ñoo tax ñu indi ko mooy genre xeetu gaam yi. waaw ah, kon mën ñu waaye ñun ñu ngi jaay yëpp si li nga xamante ni lu yomb lay parce que lépp lu ñuy jaay rek dañ siy sédd banlieue bi au lieu que ñuy def ay bon prix dañ koy dañ koy wàccee di ko jaayee 41 mille gaam bi yëpp waaye yombalal ñëpp franchement ñu bëgg daal nit ñi ñëw aussi yamuñu si gaam yi rek ah. am na ay bain de bouche yooyu yëpp ay xeetu arfois yoo xamante ne ay traitement de cheveux lay àndal. Ah, waaw man cheveux yooyu laay wër traitement de cheveux boobu boobu anamu. ak après aussi. booy ar booy booy arfois dafa am ay traitement yoo xam ne da koy kii ak boo demee ba fréeku yoo xam ne aussi pour sa karaw nooy da ko si utiliser mu gën a dundal sa karaw. yow mii ku bëgg lu baax am nga soxla. <laughs> non amaguma soxna la. Ah, dama lay may soxla man damaa bëgg ji bu baax

jaay nit mu ñëw ne leen li ngeen ma jaay xam nga ñun dañoo compliqué. non amagul nag amagul parce que à chaque fois bu ñu alhamdulilah sax la ñuy wax wala ñu ne macha allah parce que bi ñu commencé ba léegi nit ñaa ngi te aussi ku ñëw di nga am fitu dem woowi keneen mu ñëwaat jënd surtout influenceurs yi nga xamante ni. dafa baax si koo xamante ni borom kanam gu niin la am na suñoo xam ne seen kanam day niin tout le temps fu ñu leen fekk wala muy am tache wala muy am ay crasse quoi influenceur bi moom moom ngay boole ak coton bi da koy dindi vite fait. amna ñu bari ñoo xam ne ko fi essayé ba légui mom franchement bàyyiwuñ ko quoi té dañoo gis résultat. batay tey ñu ngi won fi nga xamantene moy ci centre commercial ginaaw ray marché waranka seesi won ki nga xamantene moy madame Cheikh ñu gën ka xam ci Fadio yol na école de coiffure yol salon ñu ne déetawaay mu né mu ci cosmétique bi macha allah yal na yalla xeeb doli lan mo wara cosmétique bi. waaw Fadio Fadio dëkk ginaaw ray juddoo ginaaw ray magge ginaaw ray am fi salon de coiffure am fi école a ah, am fi nag bitik macha allah bëgg rek xéssal bi day yaq yaram am na produit yo xamni soko diwo di nga xéss ta di nga am teint bu rafet bu dé teint marron teint noir teint clair yépp am na fi wa bitik bi nak mu ngi tuddu Kër Nogoy cosmétique sama goro nak lañ ko tuddé sama goro bobu nak jur sama jëkkër macha allah daaw da seek nekk Paris te yàqul Paris moom lañ ko tuddé nak sama goro macha bitik bi nag mi ngi nekk ci marché waranka bi centre commercial bi produit bu fi ñëw nag Paris la jóge macha allah bi nag yépp a ngi fi am na parfum am na diwu xale diwu mag yëpp loo xam ne daal day teewu jigéen ay parfum de classe yépp am na fi daal macha allah yépp a ngi fi ku fi ñëw rek allah fi bëgg rek di fi am. waa li nit di soxla di dem Dakar di ko commandé Paris miy ñëw di ay États-Unis lépp am na fi macha allah. lépp rek bu ñëwee fii lépp a ngi ginnaaw raay ndax ginnaaw raay bëgg ñu dara dañoo bëgg li naan ku jéggaane rek sa dëkk daa tëggul ndax suñ dëkk bi nag macha allah ñun ginnaaw raay rek lan am te lépp a ngi fi macha allah loolu lañ bëgg daal. macha allah ginnaaw te lépp a ngi fi man li ma doon commandé sax sama diw bi di ñëw la diis bi di ñëw dama koy éliminer. kër Nogoy cosmétique am na wetu nootu daam ñaar la benn banque nootu daam wetu école Notre daam benn baa ngi fii centre commercial bi foofu sama rakku jëkkër moo fa nekk Baye Dame bu baax nag moo ñu si jiitu mooñ ci si jàppale ndax lépp nag moom la ñaanal na da Seck nekk Paris nag maa ngi koy ñaar sama jëkkër du ma ko fàtte ndax dama koo bëgg ndax macha allah nag lii lépp moo ko waral ndax su ma tëye woon mbaa mu tëj ma mbaa mu xatal ma ah lii lépp nag Seck du ma ko mën yàlla na la yàlla defal jàmm ba njaboot gi ñu am dund nag ba aw la. numéro téléphone bi nga rek pour bëgg a ñëw fii ndax am na ñi nga xam ne duñu mën a am temps ñëw dañuy def seen commande rek ñu yóbbu leen waaw numéro téléphone bi ba tey rek mooy 77 354 16 55 Kornogoy cosmétique 77 354 16 55 ba tey rek centre commercial bi ginnaaw raay Kornogoy cosmétique ki la doon présenté nag jaañ la tudd waaw. jaañ sama rakk la aminta moo fi ku jigéen ki aminta la ku góor ki nag jaañ la. kon jaañ naa kon dañuy tàggatoo waaye mais franchement man moom aw ma lu ma leen wax kontaan si yéen quoi. waa waa Pikine TV. waaye le fekk ngeen ñoo gana si ma franchement defal ma émission bu mel nii damay kontaan si yéen parce que présent naa leen xeetu baax baax yi fi am yëpp si xeetu jardin bi yoo xam ne boo ko sangoo foo rek mën naa ne xale si waaye mu nekk ay secret yoo xamante ni mën naa ne bu ko nit ki commencé franchement secret boppam lay doon si xeetu baax baax. waaye ku bëgg képp ku bëgg lu baax rek ñu ngi lay woo si boutique bi franchement boutique yaa ma way nan ngay tàggatoo téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo lay lan ngay wax waa Pikine TV. waaw waa Pikine TV kontaan ci ñoom rek comme li ma leen waxoon rek depuis ci salon de coiffure bi kontaan naa ci ñoom yàlla na leen yàlla defal jàmm lu mën ren yàlla na mën dëwen lu ko raw yàlla na nekk ay télé yu baree baree bare ci barke Seydina Mouhamed. di leen ñaanal nag depuis suba ba tey yéen a ngi ñoo ngi ànd ci émission bi neex na kontaan naa waaw ñu ngi ñëw fii nag ci centre commercial bi fii nag moom lépp a ngi fi dañuy jaay ay mbasin gesner ay cuub yëpp la ñuy jaay prix en yëpp la ñuy jaay ñun daal ñu ngi ñëw fii rek pour jàppale Kër Nogoy cosmétique jàppale waa Pikine ak ñëpp nag fu nit doomu aadama nekk rek ñu ngi lay jàpp bëgguñu kenn gën uti la neen waaw kon masala mbokk téléspectateur ñun ñoo ko gisandoo fi nga xamantene moy pikine pikin ginnaaw raay ñu seesi won ki nga xamantene moy mooy Fatou Diop sopp ñu gën ko xam ci madame kon nak tay contane lañ fi am te di leen wax benen émission taru jigen ku ko wax xam si cosmétique ci salon la njëkkee ñëw ci cosmétique bi kon xam nga né ñun batay ñu ci taru jigen chaque samedi avec Ndaya sister Ndaya dara du yom